Euh, en direct ngeen am ni euh, ci group sopp maam Khalifa mu loo xam ne euh, ñu ngi convoqué le xalifa général de Léona Niassène police moom imam Mouhamed Ibrahim Niass ngir julli gin julli tey xalifa baa ngi nii di wuy ji tey police wedd nag gis bokku si ñu bëri dañ ko doon weddi waaye mi ni nii lu ne faa nga kenn du ko jeex police centrale moo convoqué le xalifa général de Léona Niassène yéen ñëpp yéen ko gis noonu s'il vous plaît ngeen partagé tout le monde yéen ñëpp ñu ngi leen koy ñaan ngeen partagé ko laa rasuli muy Serigne si Ahmed si al Khalifa xam ne tey moo nekk ci bopp njaboot gi moo ubbi la jumaa ji moo ko ubbi moo ko jiite waaw ànd ak euh, ki nga xam ne mooy doomam Mouhamed Ibrahim ngi gis daal bépp a ngi nii tey taxaw incha allah waaw yéen ñëpp yéen a ngi ko gisee noonu fa tabarakallahu euh. non non non si gannaaw laa jàll